bismillahi rahmani rahim ndeysaan noo ngi nag jag saaw toolu Cheikh Seydi El Hadji Malick fii la ko ñoom góor gi biragay na yooba daan fekk ñoom Mayoro Sall ñoom góor saane fii la dénkoon Serigne Youssoufa Diop nekk fa ak doomam ja Sidi Ahmed si mi xam ne moo des Salonique en 14 18 ba mu fa jógee Sidi Aboubacar nekk fa ak rakkam ji Alaaji Mansour fii la daara ju mag ji nekkoon fii nag mooy toolu Cheikh Sidi Alhaaj Malick fa la ko muqaddim yu bëri daan fekk di jaayante ak Cheikh Sidi Alhaaj Malick mu leen di wax kuy rasulullahi ak kuy Cheikh Sidi Ahmed Tijani di leen wax ndigal yu jógee sunu borom tabaraka wa taala Moustapha kon nag Alaaji Mansour yaa gis boobu sere xale yooyu tamit ay xale yu tuuti lañu waaye bésu Mouhamed tam am nañ ci cër ndax keroog kenn desul léegi nag jag saaw bëgg nañ ko xam moo tax tey suñu bàyyi El Hadj Abdoul Aziz Sy waruñu ko wax ndax 1909 ci la maam El Hadj Malick Sy ñëw Tiwaawan kon nag Diak Saawit El Hadj Mansour place bu am solo nga. rahmaani wa salaatuhu wa salaamuhu ala habibihi alkarim sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi Mansour fa lillahi alhamdu wa shukru laaj nga ma laaj boo xam ne bi maa ngi ciy sant yàlla ci place bi ma ko laaj laajee muy jag saaw gii nga xam ne sa maam moo ko sanc jag saaw nag dëkk la boo xam ne digganteem ak tool yi matul ñaari kilomètre walla ca la yem wala mu nekk kilomètre genn wàll suñu maam bi ñu daan wax góor gi Moustapha Tay moo fa nekkoon dégg naa lii ba lay bëgg tontu du sama waxi bopp ci ku wér laa ko jëlee koo xam ne kii dafa wéroon ci digganteem ak Seydil Hadji Malick ba ñu tudde ko doj muy sëriñ Yusufa Jóob radiallahu taala anhu bi Seydil Hadji dafa ñëw fii fekk ñu ci daqaar gi booba daqaar gi daanugul ne ba dama bëggoon nga xamal ma mbirum jagsaaw na mu tëdde ak kañ la fi Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu ñëw ak namu mu amee place bi ak ñi ko ko jox ñana sëñ Yuusufa ne ma Seydil Hadji Malick mu ngi ñëw mu ngi sañ ci jagsaaw ama bak sa Chine ci miladi ci hijri ci hijri atum gàddaay ga boo ko seetee booba dana nekk junni at ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn ndax ch moo di siin su tooy mooy junni ci siifaru arab siin su wow moo di trois trois keef moo di ba moo di deux mu tolloog ci atum tubaab bi ci la Seydi Hadj Malick sanc fii nee nag li nga xam ne ñëw na ci réew mi di wut foo xam ne fii dafa bëgg def daara yoo xam ne ji daf fay daan dooleem ak di fa tuur ñaqam ngir liggéey doomi soxna yi nga xam ne dañu ànd ak moom mu bañ a sànq seen dund mu di leen jàngal li ko yàlla xamal boole ñuy liggéeyal seen bopp di fab waaye duñu liggéey pour jox ko ko mais ba nga xam ne loolu am na comme que <coughs> daawul wax sama taalibe mbokkum taalibe lay wax waaye ci mu lañ ko mën a tudde taalibe ma mu di góor gi man njaay joon waar yal na ko yàlla yërëm ba mu faatu man la Seydi Abubakar yebal maa dem Ndakaaru jullee ko boobu moo nekk fi chef suñu bàyyi jawrin may sa mbay rahmatullah alayhi nekk fi ñu ne góor gi dangay ngay bàyyi ñu topp tool la suuf su baax soo xam ne daa fa man dem di fa bay di fa jàngal saw nit mu ne leen déedéet bëgg yu ma ko noonu dama bëgg ngeen ma bàyyi ma ak samay bokk ba ñu wutal ma li may laaj ci seen tey bakkan kenn bañ ci dugg su loolu sotti nag ma am loo xam ne dana ko soxla te du sotti te bokk leen ci moo ko yëgal leen ko góor gi mu fa tey bi Seydou Hadj Malick ñëwee ñu ne ko am na gan gu lay seet ci ni ma ko sëriñ Yuusufa nettalee radiallahu taala anhuma ba ñu ko waxee ne ko am na suñu wax sa xaaj ma sëñ xaaj Malick moo lay nuyu mu ne man de sama mburu mu gudd ñëw nag sama suukar sama mburu mburu mu gudd ak suukar ñëw na di góor gi waxtaanee mu ne ba noppi mu ne ko li dale ci sama bëñ lal bi le mbopp lal bi ba fu sa jëyam jox naa ci ndigal ci wàllu gu nekk sëñ xaaj Malick ne ko waaye nag mbëgguma jàtti du kenn doon nangu suufal jàmbur jox ma fu ñu daan bay doo bëgg nga wutal ma foo xam ne fii maa koy goral sama bopp mu ne ko am na fi foo xam ne fii dafa tëj ñëpp bàyyi moronte loobu shérif loo moo doon waxtaane keroog ay ay bënn ma ngi fi gas na fi teen yu bari fa tabarakallah yàlla na ko yàlla yërëm yàlla nanguwul loolu mu bàyyi place bi Seydi Hadj Malick ne ko man nag foofu la bëggoon foo xam ne fii kenn mësu fa dal góor gi jox ko ko muy fii ñu toog mu ñëw nekk fi ak ñu ko doon jàppale ngir jëm yàlla di ko gor di ko gor di ko gor ba mu leer nañ muy 1904 Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu fab tool yi ak dëkk bi teg ko ci loxol Sëriñ Yuusufa Jóob radiallahu anhu ne ko lépp ngi sa loxo ku bëgg a dëkk jox ko kër ku bëgg a bay jox ko suuf waaye kenn moomul ku toog ba mënatoo bay nag wala ngay kii eh, mën a mënatoo bay fabal na fab suuf si delloo la ko waaye bu mu ko jox keneen ni ma ko ne sëriñ Yuusufa nettali ci gi bi loolu amee sëriñ Yuusufa nekk fi ci woomu melo ànd ak Seydil Hajj Malik radiallahu taala anhu ba mu dem sa papa Seyd Aboubacar radiallahu taala mu ñëw ne ko lépp lu Seydil Hajj Malik defoon Aboubacar day wéyal loolo ak i rakkam duñ ci wax dara al fi nga nekkoon sama bàyyi la fi bàyyi woon man tam foofu laa lay bàyyi ma ànd ak moom àndin bu rafet boobu ba Seyd Aboubacar làqu Sëriñ Mansour waroon tegu ci gannaawam sama borom dogalul loolu ñoom ñëpp ñu bokk dem yal na yàlla yeesal ngërëmam ci ñoom ak ñi leen jiitoog dawe julli jëpp mu ñëw fi sëriñ Yuusu wax ma ne ma man day sa bàyyi dafa ma waxoon lëf ba may dénk place bi dafa ne dafa ne bi muy bëgg a dem dafa ne Yuusufa ma ne ko naam mu ne ah jak saaw day li doon sama yéene àggu ci waaye nag maa ngi la fi bàyyi su ma fi jógee na ko ame ba ku la fi fekk jàppaleel ci sëñ Soor ne ma gannaaw ñi gannaaw bu sëriñ Babacar demee ak sëriñ Mansour xaw ma woon nag ne yaa ma fii fekk kon nag kontaan na ci nga xam ne am ko ko téye ci biir loolu loolu defoon naa ci benn xasida waaye mbir mi dafa gàtt su beneen ne dana la ko toppatoo pour jox la ah place baa ngi nii Seydi El Hadj Malick 1904 daal la fi ñëw yàlla atte def na sutura booba Sidi Ahmed radiallahu taala anhu moo yore léppam Sidi Ahmed nee na jag saw gi bay nañ ko ba bu ñu fiy jógee di dem ca guerre ba yàlla dogal ak demam ca Salonique nee na ñaari yoon la ma yëpp mu xotti ci bàyyi mu buróom ci gerte gi ñu fi bay ñaari mu buróom la ko mu xotti nee na wóor na ko masuñu fi jëlee saaku benn boo xam ne bi dañ koy jëlee ci tool bi yóbbu Tiwaawan ci kër ga li ñuy daf koy séddale nit ñi wàcc fi mu sàq moo xam ne mu mag la pour ñuy liggéey ak ñi nga xam ne dañuy loru ci ci dëkk bi loolu it Sidi Ahmed wax na ko ba tey loolu moo fi nekk man mii ba ma fi toogee ba léegi benn yoon la ma sa gis ma jël fi ñetti saaku dugub yóbbu ko Ndakaaru ci sama kër ya fa nekk te sëriñ soo ma ko jox waaye boobu ba léegi jëlatuma fi dugub yóbbu ko wala déet àllaji ah, ah ba fii ma toog hmm. gerte gi fi fiy béy kazalika hmm. loolu daal mooy li nga xam ne man soo mën naa la ko wax gudd na am na place yu bari yoo xam ne place yu barkeelu la teen bi mu fi gasoo nag ak garab goo xam ne gi mas dafa taxaw nodd ak foo xam rek fi Seydil Hadji Malick tegla la fa tànkam bi jiitu ci kanamu nit ñi suñu liggéey boo ci mu ñëw fii ci place bi ngeen di bëgg a seeti foofu la toog nit ñi dañ fi dan toog di fi toog di fa toog ba mu mel ne fu ñu doon gas ndox toogaayu nit ñi xóotaay bi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim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 yow mi nga xam ne yaay joxe luy xañe lu waay am yowa lu mu ñàkk yowa lépp a ngi daw ci sa coobare ñu nga lay ñaan nga yërëm ñu te jëfantee ñun ci sa yërmande ji yaa ci nga xam ne wasiat kulla shay wax nga te wa qawluka alxaq rahmati wasiat kulla shay wax nga itam ne rahmatuka gadabat sabaqat rahmatak rahmatuka sabaqat ghadabak yàlla nañu nga ñu boole ci nga xam ne da leen yërëm ëllëg ak tey te doo leen sañ réew mi yàlla na nga dimbale kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanamu nit ñi nga teg leen fi ñu amee la sa diina ji di ko wattu di ko aar di tàggat nit ñi di fóot seeni xol jëme leen ci yow ñooñu yal na nga leen yàggal ci kanamu ñu leen yaakaar li ñu yaakaar ci yow ba nangu topp nit ñi ci seen kaw yal na boo ko tas li nit ñi yaakaar ci ñoom itam ba topp leen ñu nangul leen yal na boo ko tas lu ci nag yal nañ ko dëgal dëgal goo xam ne gi dañ ci teg suñu bët fii bala ñu ñëw ci yow lépp loo xam ne sa xaqi bopp la yal na nga ñu ko baal ñun ñëpp kenn muccul ci tooñ koo rek rek la jàpp ko lii sa xaqi bopp yal na nga ñu ko baal bañ ñu topp dara dara dara dara li nga xam ne ay àq ñu nekk suñu diggante te fay war ci ndax moomu loo ko ay jaamur ko moom loolu it bala cee sutur wañ wuñ ko ëllëg yàlla nañ ko tàmbali xob bi ñu ko fii tey yëpp yëpp yëpp yëpp ba suñu ëllëgee da nga na da nga da nga ñu naan ci sa yërmande yaaji ajjana nga ajjana ajjana nga dugg leen yàlla nañ ko ñu ko defal lépp loo xam ne dana xoqatale ci bàmmeel ci lëndamaay ak najug bàmmeel ak rek lu bu tiis ak jéggi seraat lépp lu fiy tiis ci li dale fii ci dunduk tey gi ba ci biir bàmmeel ak bañ kuy fi jóge yal na yéex bés bi nga xam ne kenn ku nekk dawu ci sa borom yal nay bésu mbégte ci yow bameel yi yal na yaatu te leer yal na nga ñu musal ci mbugalum bàmmeel ñuy taxaw taxta dilli arshika ànd ak seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak xulafaawam yi ak gaayam yu baax yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ak ñi fi des di taxawu li mu daan taxawu ñoo ñee yal na ñu njëkk ca yi ak ñi teew fii ak ñi teewul ak jullit yëpp ñi ñu xam ak ñi ñu xamul bi xaqi ma qulta li nabiyika fi surati al anfali law sallallahu alayhi wa sallam law anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa baynahum innahu azizun hakim su fekkoon ne danga nga li nga xam ne moo nekk ci kaw suuf ci loo xam ne nit mën na ko jariñoo lépp nga sacrifier ko pour nit ñi juboo nekk benn du mën a nekk te neexuma kon nag man la neex boole naa seeni xol ndax yàlla yow ci sa bopp yaay aziz ku nat ci nguuram la mu ca bëgg ay am hakim yow rek a ko nekk yow mi nga xam ne loo def rek noonu la su su neexeek su neexul doo tooñ kenn yow rek yaay hakim te itam ñu ngi la koy ñaan bi xaqi hadihi al ayati واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا yàlla nga tappe xol yi yàlla nga tappe xol yi yàlla nga tappe xol yi fépp nag fi mashariqi l ardi wa magharibiha yàlla na ñëpp ànd ndax jàmmaam waxuma la sax jullit yi waaye ñi dul jullitam ak ñuy jullit yàlla na ñuy juboo ba jàmm rek a dox seen diggante ba nga xam ne kenn dootu nangoo lor sa morom ndax la nga ko ëmbal ci sa xol yàlla na ko yàlla defe noonu ñu ngi gërëm it président bi ak gouvernement am ak ñu koy jàppale ñu ngi leen di ñaanal yàlla li ñuy ñaanal suñu bopp yàlla na def yàlla yàlla def jàmm ci réew mi te gën a boole xol yi fi nga xam ni moom la bëgg réew mi àgg fa ci ngi ak juboo ak nekk benn ak wërsëg sottiku fi te dootu jeex mukk yàlla na nga ko fi def allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa sallim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala mursalin walhamdulilahi rabbil alamin